asalaamaaleykum mbokk internet yi dal leen jàmm seen seen Leral Foot TV gars yi ñu ànd a yéen tey ci seen rubrique découverte ah, te ñu di la benn joueur bi tudd andi Diouf ah, nekk benn binational franco sénégalais un pépite très très prometteur bi nga xamante ne muy def ay jéego am solo fële ca Rennes mais laata loolu gars yi képp kuy gan ci page bi ñu lay ne bu fàtte abonné wu te nga aimé vidéo yi gars yi lu am solo la ndax ñeneen tamit mën a jot ci. vidéo bi Andy Diouf le 17 mai 2003 en France actuellement mu ngi 19 ah. ans de parents sénégalais moom évolue di évoluer stade de Rennes ci milieu terrain bi di nekk jeune très très prometteur mu ngi nii poste milieu central ainsi que milieu gauche Je ah. jeu bi mën na jouer booy bi jeune bii jeune très très prometteur d'ailleurs am na sélection ak waa U19 France ah, am na sélection ak waa U19 France ñoom yi nga xamante ne ñu ngi waajal tamit euro U19 bi foofu ca xamante ne moo di Europe ñu ngi koy waajal ba tax na que bi yore U19 bi wóolu ki nga xamante moo di Andy Diouf convoqué ko yóbbu ko ci yooyu match pour préparer seen kii coupe du monde boobule. ci loolu nag gars yi ñun dañoo war a interpeller tuuti gaay yi ndax ñu mën a gis que Sénégal am na ay potentiel yu énorme yoo xamante ne mën nañ football mën nañ lu bëree bëri apporter suñu équipe boobule. te moom tamit jaar na ci centre formation Paris Saint-Germain mais nag waa ren ci lañ ko gis indi ko foofu fële ci ren ñu signé ko benn contrat pro. te contrat boobu noonu waroon a jeex si 18 février 2022 waaye nag waa ren gis ne carrément que booy bi am na talent ñu prolongé contrat bi ba 2025 2025 na la contrat bi di jeex ren jii nag am na 6 matchs ak équipe A bi waa ren am na 6 matchs ak ñoom et en étant un jeune te tamit képp pourquoi xam ne ren xamee na ko ay militaire yu baax tu vois te tamit di leen rappeler Camavinga fii lay génn tu vois am nañu ay militaire yu baax a baax a baax te booy bi am na ci ay 6 de match te loolu ñu ngi pour mu am benn prêt ndax ñu mëna am tout temps de jeu ci comme ça après lolu su ñëwé mën na nekk carrément foofu ci titulaire kon tey ni objectif vidéo bi moo di ko wane carrément que andi Diouf il est d'origine Sénégal yi loolu moo tax tey ñu def vidéo bi pour woon Sénégal yi que carrément que am ñu benn joueur bi nga xamante ne mu ngi fële ci stade Rennes di évoluer foofu mun football loolu gaay kon tamit ah suñu fédération war nañ def ay jéego jéem a xool booy waxtaan ak ñoom di leen woo ndaxte bu ñu xaar ba mu ñu mag ba pare jéem leen jege loolu day métti trop parce que boo xoolee cas Boubacar Camara bi loolu moo ñu dal parce que gars yi dañoo xaar ba mu màgg ci lañ ko commencé woo te waa France nag ñoom woo nañ ko ci catégorie yëpp. bo xolé catégorie yëpp Boubacar Camara def nako kon tey jii nii loolu dina metti lool mu bàyyi tamit équipe de France mu ñëw Sénégal gars nañu wanté dëgg nak quand même mu def catégorie yeb U17 U18 U19 U20 bo espoir tu vois légui mu am occasion dem ci équipe A bi loolu forcé day dem parce que joueur bu nek da ngay rêver tu vois bo defee catégorie yeb mais nga dem catégorie A bi joueur bu nek loolu lay rêver tu vois kon suñu fédération bi dañu wara di yokk doole. jéem a xoolaat tamit ni ñuy def ba jéem a jege booy te kese bu ñu xaar du ñu xaar boo gars yi mag ñu naan dañuy waxtaan ak ñoom noonu loolu day metti gars yi ah. ok gars yi te lii laa indi doon ko info di leen ne bu la fàtte abonné nga amee vidéo yi gars yi lu am solo la li la jox dig daje ci kanam ak yeneen vidéo jaa ngeen jëf.